clavier dama ñëw njàng si njàngum bees tàq laa nekk waa Sénégal xaal leen ma maa ñëw génne man itam sama album su mboxloo comme ñëpp <laughs> nuyu naa leen si biir limametti point com comme ni ma koy defee si biir émission bi Limametti Show nga xam ne semaine bu nekk ak ndaanaan li may dalal tey nag damaa jógee place du souvenir nuyu Adja si sama mag joojule madame ba ñëw fii zone A si fi koo xam ne kenn doot ko présenté mooy borom mille mélodies jaar nañ ci loxoom ñii composé na leen ñii dey na leen ñii def naa ñoom ay mbir waaye damay laaj tontu ndox sama diggante moom ñu fas yéene ànd ak moom di ko jaajëfal bu baax a baax bi ma accordé le ITV bi Baba maa ngi lay nuyu. waaw euh, Ndeye maa ngi lay nuyu ah, di la remercier euh, pour invitation bi euh, interview bi ni nga ko waxee di nuyu waa Sénégal yëpp ak waa limametti point com j'espère que tey du ma am lu ma metti te dëkk bi kenn du am lu ko metti ndax doxuñu ci lool stress bi dafa bëri déjà donc pas de pas de stress. pas de métite non pas de métite non non non métite mom ba doy na sëkk liñ ci jottu dund rek doy na. ah Baba da nga dund métite yow. mais yow dund nga métite aduna ku juddu di nga jund. non tay mom yow yow yow yaay star bi yow lañ invité. waaw mais xam nga aduna du man kessé ça dit que képp ku juddu. Mhm. hein di nga am di nga am bànneex di nga am euh, métit loolu moom ça fait partie de la vie loolu ci àdduna la bokk donc mais dama ne rek comme lii li ma metti point com la j'espère que ma am lu ma metti te ñi may seetaan aussi du ñu am lu leen metti loolu laa wax rek. ayca kon bu mu metti nañ ko raay raay waaye xam ma léegi damay xosi <laughs> Babou Amdy bu ñu doon wax moom kan lan lay wax si ñi koy seetaan si biir li ma metti point com waaw euh, vrai que xam nga plus ngay dem euh, ñii dañ lay xam comme. pianiste. Euh, donc Mounane Baba Amdi, c'est un musicien d'abord, c'est un pianiste à la base, mm-hmm. c'est un chanteur. c'est un compositeur Manam damay euh, composer nini, ñi maanaam créer ton vie, euh, Baba Amdi c'est c'est un auteur mooy manam damay bind pour man damay bindal aussi euh, waykat yi damay arranger aussi arranger beaucoup la yooyu yëpp damay def ay arrangement son pour man comme pour artistes yu de damay produire aussi damay jël artiste Euh, daal di def ci moom xaalis produire ko teg ko ci scène bi donc euh, kooku mooy baabaam di euh, j'évolue dans le milieu de la culture parce que du ma ne musique kese xam nga kooku mooy je veux dire ci gàttal kooku mooy baabaam di. kon yow baaba doo nelaw parce que li nga fi wax nii yëpp mënoo ko booleeg nelaw. du ma nelaw moo tax moo tax sànq bi may pour def émission bi dama àbb ay ay verre parce que <laughs> parce que mooy loolu boo xale sama bët yi dafa xonk xam nga léeg-léeg ma seetu ma ne waay mais baaba ñàng nga. you xam nga parce que da ngay enchaîner tu enchaînes tu mais mais mais loolu moom mooy euh, métier bi daf ko laaj euh, et je pense que depuis boobu aussi suñu borom mu ñuy dimbali ba nga xam ne saa bu ñu yàqee suñu suñu nelaw pour benn artiste rek da ngay gis day génn moom mooy nekk ci numéro ci ci hit bi dafay nekk ci kaw donc loolu da ngay sant sante suñu borom xam ne du yow yàlla moo lay dimbali amaana ak sa coono quoi xam nga yàlla ak yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bu ñu mënee wax Mille Mélodies kañ nga ko sànc lan nga ñuy wax. waaw Mille Mélodies avant Jawra Records la tuddoon. ma dem ba jëmi jamono ma ba tuddee ko Mille Mélodies après ma ne non c'est def sama sama waa sama sama sant ak yooyu non non jaru ko jaru ko xam nga nit moom da ngay dem tuuti après da ngay màgg tu te dis que c'est pas la peine xam nga euh, certes que am na tur yu bëri yoo xam ne ay santu euh, entreprise yu bëri ay santu nit lañ comme ay Ericsson nag yu kenn xamul bëri na Euh, mais moi je dis à un moment non bàyyi ma def mille mélodies ba benn jour Thione Seck dafa daje ak man 2STV mu ne ma booy kaay ma ñëw mu ne ma mille mélodies yow foo jëlee tur boobu ma ne ko nii rek mu ma yow yaa ko créé ma ko mu cey baaba ak doy waar <laughs> donc wa mil mélodie turu jaawro records la yore woon après ma dem ba jimi jamono ma def ko mille mélodie donc euh, je pense que ay année 2000 2005 euh, euh, côté yooyu xam nga ci ci ci ci la mille mélodie juddu quoi am nga. Mm. mille mélodie est ce que est ce que est ce que du dafa ëmb comme comme mélodie yi fiy génn yëpp waral tax peut être xel moomu ñëw nga war ko tuddee mille mélodie. Uh, non parce que tout simplement uh, à la base man dama bëgg dama bëgg ay mélodie xam nga nekuma nit bo xam dafa bëgg rythme trop trop trop trop trop uh, c'est vrai que amna na morceau yoo xam ne koy defar je mets beaucoup de rythme mais moi personne personnellement lolo tax sax d'ailleurs ma tànn piano wa parce que xam nga comme piano dafa dal euh, dama j'adore les mélodies ah loolu moo ma tuddee ko mille mélodies et bo seetloo euh, sama premier ah, album euh, hommage à Youssou Ndour bi mu ngi tuddoon You Melody xam nga mooy morceau Youssou Ndour yooyu ma jëloon reprendre ko en version jazz acoustique ma tuddee ko You Melody ainsi de suite après ma rendre hommage ma pen pen mélodie ainsi de suite. parce que boobu bi nga ko génnee nee nañ mais booy bi dafa dooj ah may wax mu jël morceau Youssou Ndour yi ëlbatiwaat ko nii nekk si géej gi c'est que baabee da bëri tiitar de est que wax nañ la ko. waaw xam nga boo dee saraxule dañooy bëri tiitar xam nga ñun saraxule yi bëri tiitar. comprends nga wa c'est vrai dañu bëri tiital nag xam nga non d'accord mais yow moo dañu bëri tiital xam nga léeg-léeg baba vraiment soof nga ya bëri affaire parce que ñuy seetaan net bu leen ko wax dara d'accord xam nga donc loolu la eh? non non loolu la eh? c'est c'est tout simplement ça quoi mélodie eh, à la base dama bëgg bon pour revenir par rapport question bi euh, morceau Youssou Ndour yi non il fallait rendre hommage à Youssou Ndour fan yi maa koy wax ci net bi maa ngi wax que ne il faut ñuy rendre hommage nit ñi euh, de leur vivant maa ngi koy wax ci ay Sidi Lamine parce que journalistes yi mu formé bëri na comprendre animateurs yi mu formé bëri na animatrices yi ñi nekk ci télé yi bëri nañ et ñooñu doo mën a xam lan la ñu liggéey sànq génnuñu àdduna et ce qui me fait le plus mal moom mooy lu tax duñ leen tuddee yenn mbir yi man par exemple dama contre ay turu Euh, ay grand théâtre dama contre ay monument de la renaissance dama ko pour man il faut moi am ay ay tour manam nga voilà par par exemple ci ba muy dund nga jël lu tolné grand théâtre nga tuddé ko par exemple Youssou Ndour pour man lolu mm-hmm. euh, ku ku mel ne Youssou Ndour warna am ay ñaar ba ñetti tour mm-hmm. xam nga ay mbedd Youssou Ndour monument de la renaissance ça va permettre aux touristes bu ñuy ñëw mm-hmm. ñu né man monument wu Youssou Ndour bi la démon xoli ça va aider le pays euh, Sidi Lamine waroon nañ ko mën a tuddee euh, dara euh, même même les mosquées sëriñ si nga xam ne dafa am lu ñu fi liggéey ay maam Abdoul Si Malick Dabaax xam nga ñu war leen xam nga moo gën ay parfois ay grandes mosquées monument de la renaissance léeg nga gis sax ay rue sans soleil xam nga tubaab yi dañ koy def parce que dafa am fu ñu egg et tubaab yi ñoom lu ñuy jox ñu koy jàng seen histoire dafa bëri mais ñun du en retour du ñu leen jox dara lu ñu jàng xam nga jamono yi daal laa gis ne euh, ci yenn écoles yi en France dañuy joxe ay yenn way Youssou Ndour yi élèves yi di ko jàng tu vois et je et je dis c'est dommage yenn yi même ay école des arts nga war ko mun tuddee ay Habib fay tu vois c'est important parce que ces gens ont représenté quelque chose pas seulement pour la culture il y a eu des hommes politiques yoo xam ne waroon nañ mën a tuddee leen dara bi ñuy dund ci seen dund comprends nga dafay permettre à la génération future ñu xam histoire parce que am na ñoo xam ne du ñu fekkee ñooñu dañ naan bu boobaa dañ naan la papa kii kan la wala yaay kii kan la et bu boobaa di nga mën a wax ne kii kat moo fi defoon lii kii télé yi ngeen di seetaan nangam nangam naam kii moo formé genn wàllu journaliste yi et ça c'est important pour moi euh, c'est ça le problème le mal de l'Afrique euh, du ma wax que ne euh, sous développement bi loolu la mais quelque part gis nga affaire bi du ay affaire pétrole ak yooyu de ci bopp la et dafa am lu bëri bëri bëri loo xam ne dañ ko rate ñun laa wax quoi à commencer par moi dama koy njëkkee ci sama sama bopp dafa am loo xam ne dañ ko dañ ko raté quoi hmm. te loolu bokk ci. mu mel ni comme ni ñu koy faral di waxee personne prophète chez soi. Hmm. Sénégal moom ñu si bëri bala ñuy xam sa valeur nga jóge fii. si repose rek ñu ne ah kii bu baax la woon ko amoon nangam la ko amoon nangam la hmm. pour yow lan moo war tax Sénégalais yor jikko boobu duñ ko wax si sa dund. Ah, du Sénégalais rek ça c'est c'est pratiquement beaucoup d'Africains je vais pas dire tous les Africains euh, su je doon wax ci l'émission émission bi euh, nous Africains nous ci dañu Nous dañu généreux. manque de générosité daf koy def. Ah, non non non du manque de reconnaissance aussi les deux. Euh, parce que qui dit générosité quelque part tam nga wax reconnaissance un peu. Euh, boo gis nga nag boo générewee bu nit défé lu bax ay symbole euh, euh, par exemple tu vas voir le président Abdoulaye Wade munoo ne par exemple lu aéroport xam nga man dama contre affaire nga jël li tuddé non non non non y a des gens ay ay. ay Tyson. xam nga il faut ñu jox leen ay symbole la y a des hommes politiques mhm. des écrivains.

mais amana amna côté bu 80 ou 90 des sénégalais dañu fogné des di producteur la wala la wala musicien xamuñu ko par exemple s'il y a 100 artistes au Sénégal 80 ou wala 75 yi baba am carrière artiste artistes ak no soit bindal na la jox soit composer, na manam créer air soit arranger na sa musique wala soit créer une tournée

tu as tu as très mal et une composition c'est c'est un peu ça loolu defar la boo gisee ba bu bu demee ba am dolé ba am du ñëpp di ko woyandoo di dugg fii génn wala nga monter ay concert nga gis que nit yi waxuñu si du bëgg wanewu par exemple en aux États-Unis sañoo yéeg sur scène par exemple Rihanna bu un morceau qui est ko di di interpréter morceau bobu. parfois bu fekkee dem na bay wax ci morceau bobu, rek su jaarul ese porté nañ ko ci plainte ñoom am na yoo xam ne ñoom duñ ko baale quoi parce que une composition c'est c'est très très fort doom buy juddu la nga jël ko joxe ko loolu tax boo ñëwee ba droit d'auteur euh, il faut ngeen xool ni ngeen di répartir droit yi. lan mooy projet yi ak lan ngay tàggatoo ak euh, élection yi ñuy jëm 2019 lan nga ci xam. waaw pour euh, pour wax ci élection 2019 yi man man artiste laa boo xam ne. engagé naa quelque part c'est-à-dire non non non dama ne du nekkuma artiste boo xam damay croiser les bras di seetaan. bokk nga ci association yi ànd falaat Macky bu artiste yi. bokkuma ci association yi pour être sincère bokkuma ci association yi euh, mais am naa quand même sama gis-gis ci politique. et sama gis-gis ci politique euh, parfois amaana nga d'accord ak ñii parfois doo d'accord ak ñeneen yi loolu mooy àdduna parce que du ñëpp. ngeen di mën a yéenay yéenay bokk gis-gis mais li ma seetlu rek que même quand tu es au pouvoir les opposants soo defee lu baax parfois duñ ko wax man je ne suis pas d'accord waaw man non man d'accorduma loolu man maa gën a mën a tey jii ne man d'accorduma ak politique Macky Sall mais su defee lu baax dama naan ah il a fait du bon boulot su dee mënuma ko duma wax ba pare li ma gën a ñaawlu man ci politique bi mooy xamalan mooy ñaar yi dañu mën a wax lu ñaaw c'est-à-dire aujourd'hui da nga gis sama moroomu papa sama moroomu mag mm-hmm. boo xam ne dafay wax loo xam ne dafa ñaaw te te ñu am ay doom mm-hmm. te ne ñoom dañuy politique pour jiite ñii pour dimbali leen. mais xoolal barki dem assemblée rek la fa xew. waaw c'est-à-dire man loolu man d'accorduma ci ñuy politique politique parti au pouvoir ak opposants yeeg ñëpp laay wax man d'accorduma ci làmmiñ bu ñaaw euh, man je ne suis pas d'accord du tout xam nga booy seet Ablaye dafa am benn fort mooy que lu nekk lañ koy wax il répond pas comprend nga li ma wax jikkoom la comprend nga euh, même Macky il il répond pas xam nga waaw mais doo ko di gis mu wax non y a une chose xam nga man non xam il y a une chose que j'adore chez lui c'est-à-dire euh, non non non y a une chose que j'adore chez lui il a beaucoup de respect par exemple par rapport aux vieux ah, Maki man mosuma ko dégg mu wax euh, Ablaye wad bat bu dépassé même su ko xalaatee intérieurement xam nga lolu wax ju ñaaw baxul xaw ma ndax comprendre nga té day des moo la ñi nek ci pouvoir bek ñi opposant yi man limay déranger moy li ñuy wax wax ju ñaaw damay bëgg nit sax parce que bëgguma wax fi ma fété pour l'instant damay bëgg nit sax mais mu def discours ma dégg benn affaire boo xam daf je dis non qui il peut pas être le futur président du pays parce que il n'est pas en train d'éduquer comprendre nga de la fin euh, il faut ñu jàng du ma fi di wax musique parce que bëri na ñoo xam ne jaar nañ fi bëri xam-xam lool musique ku ci mel ne abi fay ba nga xam ne tey jii ñun bu ñu amee fit di ko def bokk na ci ñu ñu ñaax mais moo de la fin mooy chaque personne war na di gën a mën a parfaire jikkoom di ko defar di modeste simple boo ma gisee da nga naan baaba simple alors que je très accessible moi je parle man ak sama fans yi damay waxtan ak ñom parce que na légui sa statut nga na jigéen ñi ban conseil ngay don jox. <laughs> may ko wali ma metti ñu lay seetaan waaw waaw non dama ne dama dama dama ne jigéen ni bay leen bëri histoire. histoire amul ben njëriñ. comprendre nga parce que tout simplement bu ngeen ko defee da ngeen di perte seeni goor dañuy dem outil jamm dama bindon ben wayu aline Mbaye ner di mu nan takuma takuma budul jeex ma takk te sey loma xam nga góor gu nekk fi mu amé jamm lay tok et ça c'est important tu vois pour que jigéen ni xam ko amana yenn jigéen ni du leen neex ñu koy mais bon c'est pas grave mais amna na ño ñoo d'accord nañ ci. conseil aux femmes conseil aux femmes euh, il faut ñuy wañi histoire yi leeral seen kanam mënu ñu yow ba paré di ko euh lolu baxul amul benn njëriñ euh, parce que tamit boko défé da ngay perte. boko défé da ngay perte conseil et conseil aux hommes aussi góor aussi mm-hmm. dañu wara di gëna euh, japp ci mbir yi gën jigéen ñi. comprendre nga mais euh, non xam sur tollu ñu ci jamono surtout xam nga lu tax parce que c'est un homme qui a été brûlé vif non il faut le dire. xam nga bo démé ba toll ci jamono yooyu ça veut dire que ça va pas. xam nga te jigéen dafa mun juum amaana mais du ñëpp ñoy xamné ne dañu bon ñëppay juum Baba am yow keneen ak keneen ak keneen mais dal le conseil général que je donne mooy que ñu xoolaat jikko yi surtout ces hommes politiques moi ñi nek au pouvoir comme euh, parti euh, comment dirais-je encore opposition il faut kenn ku nek di sàmm ay kàddoom di defar ay kàddoom xam ay doomu Sénégal ñoo fi nek mais bul bëgg dara rek ne damay xaskelé man je suis contre ces gens la loolu baaxul da xam lu ñaaw sax mais nga nëbb ko àdduna noonu la quoi euh, loolu mooy conseil bi may joxe pour tout le monde kenn ku nekk bu ko defee je pense que ci li nga yëngu suñu borom mën na la dimbali Sénégal jëm kanam li li la metti euh, di wàññeeku. li la <laughs> la gën a metti sa àdduna. li ma gën a metti.

waaw bokk na ci li ma gën a metti daf may metti trop trop trop trop trop xam nga moo xam femme bi dafa juum ak nu mu mënti demee je dis bokk na ci li ma gën a metti waaw mais sinon man yi ñu may def moom je suis habitué à ça le showbiz est comme sax xëy na man tamit maa ngi koy def te yëguma ko xëy na maa ngi tooñ euh, man tamit xam naa ñu may jox suma wàll donc. ay <laughs> ca dégg ngeen ko noonu moom borom mille di laa daloon tey ñëw fii si studio mi tabarkàlla macha allah ni mu ko waxee nag noonu la mel mu nekk accessible dama ko woo rek mu accordel ma ITV bi te yooyu dafay baax tam pour yombal suñuy liggéey jarul yéegal niveau yi jarul xam nga ngan nganul jarul kii dañuy waxtaan kafre xam nga dara lu metti nekku ci waaw il faut que artistes yi comprendre xëy na li ma leen di baaxee que communication tey dafa changé mhm. li woon yaa dix ans quinze ans pour sama morom ma artistes yëpp yi may déglu mënatul nekk maanaam ndey ci télé bi rek la doon séenee ak liir la ci benn journal amatul parce que tout simplement da gis ko xam ne kenn xamu ko joué wul théâtre joué wul film du waykat mais moo la gën a populaire ci réseau sociaux yi moom photom lay dugal rek mu gën la nekk yow star am di gën la nekk yow star keneen ak keneen ak keneen donc l'artiste est obligé avant on te disait il faut faire du porte à porte il da ngay du tel à tel tel à tel téléphone téléphone c'est-à-dire que si ne artiste un artiste, wax ak fans en ligne amul ben sens man damay wax sama yenn fan si parfois ñu né du baawam di rek ma peine appel vidéo wala dara pour pour pour vérifier je dis ça se comprend mais bon bu la féké fo xamné peut-être waro jël appel vidéo bi da nga naan ko mënuma jël après naa la et côté bobu war nañu xol ñun suñu communique je te donne le cas de Kim Kardashian Kim Kardashian dafa togon ay jamono un xam mo populaire États-Unis <laughs> Kim Kardashian wayul mm-hmm. Kim Kardashian changé le film comprendre donc juste pour dire que la communication dafa changer. donc un acte ici, il faut changer cette communication de dem vers fans yi ñoo mais maintenant mm-hmm. et ça a été le cas de Salam Salam était très intelligent sur ce côté Salam Diallo Ces mm-hmm. soirées étaient bourrées de monde parce que Salam aller vers ces fans day dem vers fansam Wali non la mel day dem nga aye euh, nga aye dara dafa mën nitam mu wala affaire il faut aller vers les gens man man meluma à 200 peut-être je ne suis pas cet artiste très peut-être euh, buy jouer ci boîte yeeg parce que bon hein? non surtout Sénégal Sénégal les gars ma yow non gis nga yenn femme yi ak yenn góor yi yi nga xam ne joué wuñu defuñu dara ñoo la gën nekk star parce que ñoom sur Instagram wala sur Facebook ñoo la gën a populaire fouf yow mi way yow mi kii parce que communication moo changé le monde a changé tu es obligé de changer du ko ne da ngay dikk maintenant communication ça a toujours été comme ça euh, xoola xam naa dinañ ne dama bëgg mariam Faye Sall dama dama seetaan net bi jékki barki démb ñu ne dugg na biir Sandaga mais c'est comme ça xoolal Macron limu def day jékki-jékki dugg ci boulangerie yi jékki dugg ci ci baar yi ne leen lan mo len neex ci man ak lu ci man ça c'est très fort xam nga même bu xam-xamu communication la même bu yaangi yaa ngi nax nit yi mais yaangi jang don Talibé di dox di fekk gaay affaire bi loolu la tollu c'est très important dégg ngeen ko noonu conseil beneen baaba am di jox kon nañ ko wàccee nañu wàcce niveau yi ah di jokkoo parce que yii nii dafa baax day tax sa fans yi di la gis di la dégg mais xam nga buñ ko ajee aj ajom ko xam nga day metti <laughs> di leen jaajëfal dar maa ngi ko mbay amar maa ngi koy béggee sama caméraman bi di béggee waa mine mélodie yëpp gars yi ma fi fekk ñoom ñëpp ataay nañ seen ataay bàyyi ma ñu ngi defar seen i yooyu yëpp may ñu ma si dara waaye bi jeex na ba semaine bi ñëw ak keneen ku may <laughs>